asalaamaaleykum mbokki stan allo Dakar TV man dalou dakar nuyooti naa leen si fi may tasee yéene kaay ma da dem ci la tribune la tribune ñu def Macky Sall installe un deuxième gouvernement au palais ki nga xam moy mooy son excellence monsieur le président Macky Sall tàmbali ak euh, Macky 2 gouvernement bees ba ñoo ci palais ba li ci biir yëpp xol leen li nga xamanteni la tribune ñu ci la tribune damay dem euh, l'observateur déjà la guerre la ilaha illallah changement de régime politique déjà la guerre la ilaha illallah le projet de loi de Macky Sall divise l'Assemblée nationale manam projet de loi bi nga xamante mom la baye Amadou Sall tek divisé na li nga xamante moy euh, Assemblée nationale la guerre déjà ñu def Cheikh Kanté toujours ministre suivi du PSE manam Cheikh Kanté fa nga xamante fa la ko Macky Sall tegoon avant ñu def remaniement Macky Sall tek na fa Cheikh Kanté ba tay baye Kébé Kanté il a mérité suma ma ci loolu damay dem euh, suma ma ci tribune damay dem euh, ci l'observateur dem ci li nga xamante moy libération yene a libération ñu def

ministre de l'intérieur jabar ja ba muy am doom looloo tax mu dem ca tool ba tibb ci yàmbaa bi daal di takk benn rek commencé a waaw waa ji ma a na yow ñuy tere un jaay yàmbaa yow nga naan nga koy bay su ma ci euh, libération damay dem ca li nga xamante ni mooy euh, stade Yeneka ñu def le Sénégal évitera-t-il le groupe de la mort la ilaha illallah 2019 tirage au sort à 18 heures au Caire témoin ñu def euh, économique

ñu ñëpp takku jàppale ki nga xamante ni mooy Macky Sall ci deuxième mandat bi ndax Macky fi ne présidence Macky Sall moo fi ne du samay wax de waa Oddi Amar ñoo ko wax bye baay ba altine ak jàmm